ci kilifteefu sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides sëriñ Abo Mohamed Mbàkke xalif Cheikh Mouhamadou Mamoun Mbàkke borom Daaru Salaam ci ndigalul El Hadji Maam Cheikh Anta Mbàkke xalif Cheikh Mouhamadou Rokhaya Mbàkke sëriñ Mbàkke Gueye di dongub tërbiye sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbàkke moo dellu di leen yëgal bésub cant màggal ak ñaan ba mbaaxoo defal sëriñam soppeem sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbàkke ibnu sëriñ Moudou Mamoun Mbàkke ibnu El Hadji Maam Cheikh Anta Mbàkke borom Daaru Salaam di bis bu mu yeesal ak jaayanteem ak sëriñ bi fedd liwaat ak laxasaayam ci jëfe ndigal yi ak moytandiku tere yi ak fonk ay addiya ngir xër ci sàkku jàpp bis ba ren alxames juróom-benni fan ci weeru janvier 2022 ma ngay amee gaawaan mbàkke kër Baye Mbaye Dieye huit heures la ñuy tàmbalee jàng alxuraanul karim xasida istixfaar ak salaatu ala nabi def ko addiyey Serigne Touba ak maam Cheikh Anta waaye daañu fàttaliku ca bis ba jàmbaari l'islam yii Serigne Djili Mbàkke ibnu Serigne Mudu Mamun Mbàkke nekkoon xalif maam Cheikh Anta Mbàkke Serigne As Ceytu Mbàkke ibnu Serigne Moustapha Ceytu Mbàkke Serigne Mudu Baaxum soxna Daba gërëm ak ngërëm soxna Mbeen Mbàkke di wéy juru El Hadji maam Cheikh Anta Mbàkke yàlla na sa borom dooli leen ay ngërëm ak i 14 heures nag a julli bernde ak jaar-jaar yi Serigne Mouhamadou Rokhaya Mbacké ak ngërëm ci Anta ak kilifay diine yi ak kilifay aada yi bu waxtaan wa jeexee nag Serigne Bara mooy tàmbali njàngum xasida ma Serigne Fallou Ndar Sikrula àggale la des ca guddi ga bu ñu noppee sant soññee ñaani bi mbooloo ma ñu ngi tudde bis bi ren sëriñ afiya gay daaru ci teewaayu sëriñ muuri gay xalifaam dara jaale bis bi mam balla gay muallimul quran sëriñ mbàkke gay karoleur di ko yëgal njabootug xaadimu rasul rawati njabootug maam seex anta mbàkke borom dërëm ak ngërëm seex yoon wi daayira yi aju ci kër sëñ mudu roqaya jullit yi ak taalibe yi xarit yi dëkkandoo yi wëlëri yi ak soppe yi ak am ci jàmm yi monsieur kër yeeg am ci jàmm yi di ñaan ku teew ca bis ba suñ borom defal ko ngërëmul yàlla ak pajuk aajo barke Cheikh Mouhamadou Rokhaya Mbacké barke Cheikh Mouhamadou Mamoun Cheikh Anta Mbacké ibnu Modou Rokhaya soldaarub Cheikh Sidi Gawane Sadikh ba Cheikh Anta Mbacké lañ duppee Cheikh Anta di rekki bambay jàmba tey xejam ba Cheikh Anta daana jiitu xalal bamba cim ñax ba cay xalan ko ak taaram ba Cheikh Anta Mbacké mbër ma dem na Makka ajali Cheikh Bamba magam sangam ba Cheikh Anta àndoon ak Alaaji xam ba Ibrahima Jaag Sëriñ Ma Njaay la àndal sëñ Takko Cheikh Mayoro Fall dongam ba Cheikh Anta Mbacké fekk Bamba réewum Gabon dox na ba dem Mayomba Cheikh Anta bàyyi Moodu Maamun Mbàkke borom Daaru Salaama yor tiitar ba Cheikh Anta Mbàkke bàyyi Moodu Maamun mu droq yaa sa tam ba donn cër ba mu droq yaa di bàyyi maam Cheikh Anta ñi seen jaloore daj na mbooleem dun ba may ñaan ca saa borom ku teew ba fexe tey ak ëllëg bisub la ba la qualité fait la différence xam nañ ne lii ku ci def sa dara da ngay yokk waaye du doo dootoo wàññi ko sëriñ Mbàkke Jéy bisam boobu muy woote ñëpp xam ne bis boobu moom itam moom la ñuy ubbee liggéey bi euh, ku ca mën a dem rek nga dem ca teew ca te loo ca def nga xam ne liggéey rek ko tax a jóg wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu